bépp élection bu doon am man Youssou Camara satisfaction la mun naa ndax tey président Souleymane Ndoy en tant que tel ci ben raison parce que au niveau du département de Rufisque mom moy ben dom bo xamné ni ne Rufisque Ouest le deuk di jàppale ñu investir ci liste nationale au niveau de la commune de Rufisque lolu rek c'est une raison morale bo xamné ne ni ak ah, da man en tant que tel rek warna ko mun jappalé mais benen bi tamit comme démocratie lañ nek ñam mouvement bo xamné ni mouvement bi y'a 8 conseils yo xamné ni ñi ngi nii ci lañ bokk dañ don xol suñu choix il faut que nous parce que élection boo élection mouvement un mouvement qui était citoyen au départ et qui est devenu politique faut que nous fassions des choix et les choix on l'a bien réfléchi ñun suñu choix dañ porte la coalition la grande coalition Benno Bokk pour plusieurs raisons pour plusieurs raisons élection législative on veut que le président continue ci mandat mandat jusqu'à 2024 on veut que aussi les programmes de l'État au moins que au moins que mouvement avec gis ci mouvement encore une fois dafa a presque 200 de vote au moins ci nouvelle nouvelle cité euh, mouvement bi amna ci ay base représentants partout ñu gis suñu réalisation du président de la République et pour cela et pour la continuité et pour la stabilité du pays bëgg nañ au moins euh, aussi à l'école imprimerie comme à l'école Charlemagne mouvement bi won ci comité yi fi pour une large victoire de la coalition Nous bok Yaakaar euh, ñun bok bo xolé ce sont des jeunes parce que presque génération de jeunesse la yalla def na ni on discute de longuement mais politiquement on on on a jamais cheminé ensemble te cheminement bi dañ koy ñaan mu am ci ndam mu jur ci ndam dootuñ ko may dara moom kay dootuñ ko may dara parce que jël nañ engagement fii ànd ak moom lépp loo xam ne ni soxla gox bi la lépp loo xam ni besoin ci gox bi la ah même bu élection bu dara man tey comme may na ma am opportunité bi dinaa dem fëgg ci këram ne ko lii la comme ni mu koy defee ci gox bi yàlla xam ni xam nañu mi ngi participer dans la mesure du possible ci développement commune de Rufisque surtout mais nous, ba parce que au niveau de la Sonacos il a dépensé plus de 1 million les femmes yi mais ci mouvement bu ñu nga ne 13 groupements de femmes coalition de bokk yakar en tant que président en tant que homme ouest bëgg mu japp ci élan parce que ñun ci loolu on part avec nos maigres moyens mais avec les moyens du du maire de Mar avec les moyens du président Souleymane bu ñëw dañ Nous gëna gis suñu doole mais dëgg moy amna lo choses ñun ñokay jëlal suñu bop amna lo ñun ñokay jëlal suñu loolu politiquement bokk na suñu former politiquement parce que bon ma ko rek dañ tok une heure temps deux heures temps chaque fois dañuy jang ci lu bari ci mom te tamit defe naa ku am un euh, père comme Souleymane Doy nga yag yàgg conseil nga am un maire comme Alioune Mar mu tassalé ci politique kon defe naa fu ngay tek sa tànk war nga ko xam et le choix aussi c'est la continuité nous sommes constants avec nous-mêmes les gens disent que pourquoi ànd booloo jëriñ si kof dirigé par Youssou Camara conseil municipal yi nek fi pourquoi ñu def le choix et par devoir et pour mémoire

décision d'Andak c'est sur ces deux raisons. La raison d'une continuité que le maire Alun avait pris comme engagement. Et la raison pour laquelle le président a honneur au niveau du département, de, au niveau de Ouest, qui est liste nationale, un dôme de, de Ouest. C'est la raison pour laquelle nous avons pris.